mooy bàcc yow ndox rek la soxla ndox rek la soxla. ci jël bagage bi am na ñu voilà technique bi travaillée l'adresse du soir. Franchir la présidence, Felipe Colombo.

Atlantis, Bimorphal et United.

reporter. Nous attendons le début de la ligne de dépôt. Parce ndeysaan fasuwaane moom di dajal di noppi daf ci am ñoo xam gis ni duñu comprendre français yi samay ndaw lañ jëlee la ñu ñu leen jotee rek ñoom ñu comprendre waaye rakata hii

ci kanam Thank you.

maa ngi ñëw sama rek maa ngi ñëw Thank you. L'obstacle numéro 1, numéro 2, numéro 4, 5 et 6. C'est parti. Konde bu mu def moom mu def avant mu tëb que la piste, nous avons le défi du courant. À vos et 44. Pour l'instant, nous avons 200 pour le deuxième barrage. Nous avons le défi. Il a la dans son fardeau.

Donc pour l'instant, nous avons deux cavaliers victorieux. Donc, on a Sakali, Abdelou Fakour, Délokar, et Thomas. Merci. <laughs> Yeah! Mohamed Ba Mamadou bi damm na ko

rentré à la caserne, hein Oui. On, on s'excuse, hein Encore Il faut recevoir le chevaux, hein En reçu de quoi L'État C'est la reçu de l'État, quoi Quatre, quatre personnes yi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëw. Demba Seck kanu Cémar kuy Demba Seck mooy maami Mbay Jéen Siñoor al demba ko sàlloo ndeysaan taaxum kaw ak fasunaaru góor samaam rek ñu ci mag kor koña xaw nga war te mënu dox mbay Musaa Amar Fa Demba mbay jaameej jaameej xam nga boo déggee ñu ni taaxum kaw ak naaru góor demba sekkanu ci mag korkooñe xaw ngaa warte mënulaa dox Moussa la yamar faa Demba Demba Seck alaaji Demba sek Mbay moo jur magu Mbay mi jur Mbay Jéen Mbay alaaji Demba Seck Mbay moo sàlla woon fils Alamdu ak mystère ak fils Mbàkke ak Jeanne d'Arc ak belle euh, boo liggéey rek boo liggéey rek nga gis résultat waaw te moom te moom mooy soog a ñëw si épreuve yu mag yi en waaw dañuy jëm a améliorer aussi di féliciter tout derrière Asfa ñëpp ñëpp ñu fa nekk surtout surtout aussi si capitaine Bar tout ak sama coach major gars yi bàyyi ñu kenn en fait waaw di féliciter ñëpp aussi quoi en fait moom moom mën na tëb ragalul dara quoi c'est juste ça waaw mais ëppalul fas yi dara tamit ëppalul fas yi dara mais est-ce que est ci moom la lépp moom la lépp moom la waaw lépp moom la dama ko koy bàyyi waaw parce que fas la boo xamante ni aussi depuis bu ma ñëwee Sénégal maa ko débouré quoi man maa ko yor Asfa jàppale ma ci ñu dem ci kanam quoi di féliciter ñëpp tamit ñu nekk ci ginnaaw Asfa kenn bàyyi ma parfois damay war Asfa sax ñu fonne mbaaw laa far te demul noonu ñëpp samay xarit nañu ko en fait waaw mais lépp fas bi la lépp dama ko koy jox. looy wax ci foire Adam bi. non amuñu dara lu ñu wax lu dul kontaan waaw décoration yi rafet na tout euh, mooy deuxième année ñu ñu ciy participer waaw di leen remercier rek lii moom nañu jaar yàlla mu nekk ci kanam ko vraiment di di aussi sama cavalier yi waaw sama concurrence yi ok moom. moo jël première yeeya. nag war macha allah waaye lii moom neex na journée la bu nga xamante ni nii ñun amuñu lu dul fas moom rek la ñu xam fas nag ni ko yàlla terale yal na yàlla teral ñëpp ñëpp am jàmm parce que lii rek la ñu xam lii la ñu bëgg. lan wax waa Adam ak organisation bi. waaw organisation bi nag moom zéro faute rafet na neex na. bu guddi jotee ñëpp bàyyi seen kër heure bi ñu war a reer lekk lu neex naan lu sedd tëdd ñun ñu ñëw ñu organiser ko ba mu mel ni suñu kër yal na yàlla dolli jàmm ñu yàgg ko teewee. Sénégal je pense bu ñuy wax affaire fu fas dans un premier temps gendarme yi ñooy tax euh, et je pense que tey honoré nañu encore seen corps euh, ñoom ñu bugg fas ñoom ñu tax Sénégal ñu gën a bugg Fass waaw loolu la ñu amoon lu ñuy wax. non très content vraiment il nous a vraiment honoré. on sent vraiment bon. Oh, oh. Donc vraiment, ça, ça c'était un, un, plaisir en tout cas que de voir un cavalier de la gendarmerie vraiment au podium. Donc oh, il nous a dignement représenté en tout cas parce que et ça montre nettement que seul le travail paye. Parce qu'un cheval qui saute 1m60, et son, un couple en tout cas pour dire cheval et cavalier, c'est pas, pas facile quand même. Parce que 1m60, c'est pas facile à aborder. Donc un, chef, couple qui parvient à traverser ça, à sauter ça, ça montre nettement que vraiment il un travail a priori, donc euh, avant action. Donc euh, tout ce qu'on veut dire, c'est félicitations au cavalier et lui dire aussi de bonne continuation en tout cas, parce que le meilleur reste à venir. Et c'est le travail paye. nuy nuyu naa la. fay naa la ma Diop fay la. tey ñu ñëw ci euh, foire Adam bi nga bokk ci Adam. Euh, ñu euh, jagle hectation euh, bi fas yi gis nga tey hectation bi ni mu demee tey lan nga may wax ci foire bi waaye rawatina ci hectation bi nga xamante ni deux jours def nañ ko muy samedi ak tey dimanche di final bi. waaw ma jóg vraiment dañoo kontaan lool parce que vraiment lii innovation la bu taay Adam ci xar lañ ko xamee même bu nekkee am na yeneen jur mi def mais fas yi dafa nekk loo xam ne dafa yokk lu bëree bëri ci foire bi gis nga ambiance bi gis nga mbégte mi. te yaakaar naa aussi gis nañ fi prestation de qualité yoo xam ne euh, dawalkat fas def nañu ko fi parce que sori nañu fii lu mot nekk un boo xam ne ñun ñëpp dañ ko ci am mbégte am ci fierté macha allah. nan nga nan ngeen jàngat nan ngeen gisee foire bi nga xamante ni yéen a euh, yaakaar naa tey ku gis dayo foire bi xam ni tey bokk na ci foire bi gën a mag ci Sénégal loolu nag lan mooy secret Adam ba ba ñu organisé lu mel. bokk ndey bokk bàyyi bokk benn passion am ambition yoo xam ne yu la macha allah parce que liggéey bi loolu moo ko motivé. dañoo bëgg a liggéey liggéey boo xam ne dafay jëriñu Sénégal jëriñ Afrique jëriñ àdduna yaa ngi wax Afrique yaa ngi wax foire bu gën a mag Sénégal mais mun naa foire bu gën a mag si Sénégal si Afrique parce que foir bii am nay sénégalais mais am nay gambien am nay mauritanien am nay malien donc c'est une foire internationale bu mag a mag la donc ñun dañuy liggéey pour l'Afrique et pour le monde te damay wax ne laalum bi dafa nekk produit boo xam ne produit sénégalais la made in Sénégal donc bu ci liggéey bu baax rek dina mën a indi nit ñu bëri fii te dina mën jur ay koom-koom pour ñu réew mi incha allah. Euh, ñu gis ni ren chapiteaux yu bari na euh, chapiteaux yu baree bari yu mag tamit euh, loolu lan moo tax ngeen def chapiteaux yu bari yi nga xamante ni yu mag la ndax li nga wax sànq nii dafa am ay sous région bi ngeen invité leen. est-ce que pare ngeen tamit pour dem international pas Afrique rek génn génn génn. absolument si projet yi la bokk mais xam nga foire aussi dafa am beneen dimension mooy dimension communication. produit bi ñun éleveurs yi xam nañ ko suñu biir la yem dañ ko war a ubbi maintenant mu dem si ñoo xam ne du ñuy éleveur forcément mooy un grand public ay nit ñu bees parce que on a besoin de bu ñuy liggéey on veut boo xam ne dafay nekk lu extraordinaire képp ku ñëw rek enchanté wu am mbégte mun cee dugg facilement dal ma jubluwaay macha allah. est-ce que bi ngeen ci doon xaar tamit euh, yéen a ngi ko ciy gis. bu baax a baax pour l'instant vraiment li ñu naan bu ñu fi yemoon neex euh, ça fait deux jours mais vraiment kontaan nañ trop te retour bi am si éleveurs yi aussi. Euh, mbégte la ñu am ñoom tamit donc macha allah instant yi moo desagul pour l'instant no lu gën a garaaw muy ñëw nag parce que samedi incha allah am nañu concours mal ak femelle mu nekk final bi attraction bu mag a mag lay nekk le dimanche am nañu fi ñuy wax dog show mooy prestation prestation boo xam ne ay xaj ñoo koy def ñu wane ne xaj yi aussi ci càmm gi lañ bokk dañuy protéger éleveurs yi dañ leen di euh, sàmm li ñuy wax vol de donc loolu aussi dañ ko def incha allah mu nekk yi tàmbali na neex na mais jeexagul jeexagul. jërëjëf kontaan nañu jërëjëf kontaan nañu macha allah. Lamine ñu ngi lay nuyu. waaw ah, ma <laughs> maa ngi leen di fay. Lamine yow yaakaar naa ci wàllum fas yi rek laa lay interview nga gis euh, excitation bi nga xamante ni tey am na démb ak tey tey nekkoon final bi lan nga yëg tey en tant que éleveur bu fas ci di yëngatu ci wàllum fas course euh, waaye tamit di yëngatu ci wàllum xar ndaxte kenn ku ne gis na ni <laughs> almaktum yor ñu ay xarulaadum yoo xam si ne macha allah ñoom tamit yéen a ngi ciy liggéey liggéey ba am solo tey nan nga gisee li nga xamante ni Far rek la ñu am peex vraiment sooy nekk ci mbir bokk ci muy avancé di yokk boo ci nekkee mbégte rek nga ci mën a am vraiment lii ñu jógee ni épreuve yi épreuve yu am solo la et je pense que du toujours la ñuy gis fas buy tëb 1 mètre 60 te tey gis nañ fi fas yu tëb 1 mètre 60 def parcours yu yu yu mucc ayib te loolu vraiment dañ ko boole léegi ci li nga xam ne nii mooy salon bi parce que salon bi comme ni ko président waxee salon international la donc te que lépp luy élevage dafa bokk ci biir moo xam fas la moo xam xar la moo xam bëy la moo xam nag la wala sax ngenaaw yi lépp dafa bokk ci foire bi donc at mu jot dañuy fexe teg jéego bu raw bi ñu tegoon at mi weesu donc foofu la ñu toll tey ren ñu ngi ci fas yi fas yi daaw démonstration lañ defoon andos wax tey concours la gis ngeen ne que écurie yu bëri ñoo fi dajee di ko jongante di ko xëccoo ba finalement ci gagné le trophée bu mujj bi gendarmerie nationale la bokk mais terewul waa RCD ñu ngi foo ñeneen a ngi fi dañuy ñaan déwén bu ñuy dellu si beneen yoon képp ku yor écurie Sénégal nga ñëw participer dañ ci bëgg a dañ ci yegg même ba associé ci ñi nga xam ne ñooy def ay fausse course ñu mun a ñëw présenter seen ay poulain ak ay pouliches yi nga xam ne mooy mool yi ñuy juddale ñu mën a ñëw présenter ko fi def fi défilé def démonstration génne wajan yi génne étoiles yi nga xam ne ñooy juru fas yi vraiment ba ñu xam ne que fas dañ ko ciy dugal comme ni ci xar yi mel dañu ko fas yi mel ko nañu bëgg yeneen jur yëpp mel ko vraiment salon la boo xam ne mu ngi dem ci kanam ñuy remercier vraiment les organisateurs di remercier le président et tous les éleveurs tey noo gisee salon bi. waaw salon bi macha allah wax dëgg yàlla salon bi def nañ ko mais at bu ñëw rek raw ba ci des vraiment ren aussi def nañ ko mu extraordinaire vraiment ñuy gërëm aussi suñu sponsors yi. wax dëgg laa sponsor yi wuy si nañ ñu ak doole ñu del di gërëm ñoom ñëpp su ma limee damay juum parce que dañ xaw xaw bari mais vraiment ñuy gërëm sponsor yi yëpp ci seen taxawaay ci seen jàppale di ñaan vraiment suñuy demati aussi ëllëg ñi nga xam ne ñëwuñu woon rek ñu ñëw fekk si jàpp ci ngir xam ne que intérêt réew mi la intérêt ndaw yi la intere Sénégal la vraiment ñëpp ñëw jàpp ci pour que mu am une réussite réussite bi di gën di yokk vraiment ba ñu dem ba nga xam ne fu fu ñu ko tuddatee fu nit nekk ci àdduna bi yàkkamte ñëw seet si ko. jërëjëf Lamine bi moom c'est important. li ñu yor fii te mu nekk loo xam si ne lu lu ñëpp mën a gis la war nañ ko mën a jaay ba Sénégal yëpp gis ko moo tax jéego jéego boobu ngeen teg bu leen ko teggi mukk ndaxte loolu mooy jaay li nga xamante ne moom lañ yor te mën nañu indil koom-koom boo xam si boo lëggee mën nañ taxaw ni gouvernement toog leen ne def lu ñu bëgg a def te lii moo ko a jox kon nag jërëjëf macha allah